waaw saa buy tooñ auzu billahi mina shaytaan rajim d' abord ñuy ñoo ngi nuyu assistance bi fi nekk yëpp muy journaliste di nuyu sama mbokku mbër yi di am contentement bu baax a baax a baax teew fii pour waxtaan ak yéen lu tubaab di wax la répétition est pédagogique daanaka li bëgg wax yëpp ñi fi jaar wax nañ ko muy Gris Balla ak Eumeu d'abord dañuy féliciter suñu U17 yi yu doon football démb dafa na jaaru ci sport lepp di wala ni liggéey la dañu investir ci sport bi motax tax football macha allah jéego yi muy rek ku ne gis nako ci Sénégal ren jël nañ fi gaay yi wax 5 rek mais amna yenen ak yenen yi nga xamni ki wu ko vraiment di len féliciter bu baax di wax dëkk bi yàlla na fi jamm yàgg te sport bi mu ngi avancer bu baax baax lol nak mom lañ bëgg ci lamb ji te gis nañ ni jéego mu ngi am comme lu Giri wax keroog dem nañ palais président recevoir ñu yóbbu suñu doléance doléance yi ñu ci wax d' abord yu baree ngi avancé puisque man président bi woo na ko fii di mu wax ministre dafa waroon ñëw pour ñu teg pour ñu teg def benn euh, kii am yaakaar bu baax a baax comme lu comme lu comme lu mu wax emploi des jeunes yi tamit gis nañ ni président mu ngi ciy def jéego bu baax a baax a baax te Sénégal ñun sport ci la ñu nattu ku jàppale sport ñun nga jàpp suñu rakk nga jàppale parce que tey mën nañ ni saatu ñun suñuy rakk la suñuy jarbaat parce que ñun ñi tey xam nga ku ci nekk yàlla xaw na la dimbali boo feebaree isam lax ñàkkul foo fajo wala ñàkkul loo fajoo tey isam lax ku ci nekk yàlla dimbali na lu mu ndaw ndaw am nga kër am nga foo dugg say waajur ba tax na accès même accès euh, logement du sax ñun ñoo ciy bénéficié wu suñu rakk yi te dañ ne kenn warul ah, mujjee puso mu réer sa loxo te tey fu làmb toll ñun am no noo xam ne buñ ko buñ ko buñ ko doxalee rek maanaam dañu dañu mujjee puso mu réer te warul demee noonu vraiment di santat encore yàlla bu baax ah, di comme li ma wax tamit àdduna kuy woote lu dul jàmm rek daa fekk nga am jàmm mais bu ñàkk jàmm ñëwee ku nekk xam valeuru jàmm ba tax na am na luy Sénégal li nga xam ne mu ngi raam ci ñag bi la jëm te bu foo amee kër dafa gaaw a yàlla bu mu fa jëm nag kenn ñaanu ko parce que ñun Sénégal ñu dëkkee suñu famille la ñuy nekk suñu njaboot fi ñu nekk tey bu jàmm amul woon toogaay bii du am toogaay du am fi toog bay yaatal ba tax na loolu jàmm-jàmm ko gën ñu ngi ñaanaat encore ndaw yi jeunes yi ñu bàyyi seen xel am na li nga xam ne li may wax chaque fois yàlla moom mooy joxe nguur kenn joxewu ko te contre ngou sax day day day bokku ci ci wedd ndogalu suñu borom nit nak mën nga baña and ak mom ci waaw ci ay liggéeyam mak yoy non mais yalla mom moy fal nguur kenn joxewul kenn nguur xam nga ba taxna ñu bayi wat xel xam nga bàyyi violence bu ci dekk bi parce que Sénégal tey ñëpp pays teranga lañ ko xamé bu investisseur yi ñew fi di investir parce que stabilité dekk bi motax bu ñeneen di ñew di wax pays de la teranga parce que jàmm-jàmm Sénégal tey jàmm jooju la fi ñëpp xam ba pare dafa am lu lu leneen lu nekk ci ginnaaw gis nañ dëkk yu bari mu am ci Afrique yi lu fa xew après muy ñoo ngi yaakaar pétrole gaz yeneen ak yeneen tey ñuy noonu Sénégal yu bari ñoo ko entouré di xaar rek ba dara xew ñu dugg ci caxat caxatee suñu yëf loolu nag ñu nekk ci dëkk bi doo ko war a njëkk njëkk njëkk a bañ muy taxaw ci jàmm ku ci nekk am nga droit far fu la neex comme ni ko gars yi waxee ku ci nekk am nga droit far fu la neex ñun ay nit lañ ñëpp nekk Sénégal nekk ay ñu ci bari nekk ay jullit daanaka bokk bokk ku nekk am kuréel bokk ñu nu ñuy jaamoo yàlla mais diine ku ci mën a am wute waxuma la ak politique politique yëfu àdduna la dafa jeex mënuñu fexe ba kenn faral ñëpp faw ñuy farfee ñuy farfale mais tamit ku nekk na nangul moroomam position bi doone fii laa bokk rek keneen ku bokku fële dama koy xaas dama koy saaga wala loolu xamee wuñ ko Sénégal te loolu du démocratie dañuy wax Sénégal pays démocratie la te démocratie mooy ku nekk far fi nga far am nag loo layalee fi nga far mais du dama far fële kee far fële lu mu wax du noonu même lu mu baax baax lu mu wax lu mu kii kii du dëgg loolu nag moom dañ koy ñaawlu rafetul ci dëkk bi vraiment di remercier encore euh, presse bi xam nga di ñaanal président naal yi mu naal yàlla dimbali ko ba mu mottali ko que bu yéenee yégee Sénégal yëpp nekk ci jàmm. Sénégal la ñun ay sénégalais ay citoyens lañ xam nga vraiment ñu ngi wax yàlla na jàmm yàgg ci Sénégal bëgg-bëgg yi ñu bëgg ñun ñëpp yàlla dimbali ñu mën koo mottali incha allah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 li bool ñu ci moo ñu nangoon nii ñun ñëpp ay citoyen lañu ci dëkk bi lañ dëkk président dafa ñu recevoir le 8 mai bi paase ñun mbër yëpp ñu ànd dem fa du mbër sax monde de la lutte ñu ànd dem fa ba ñu demee suñu ay bëgg-bëgg ñu wax ko ñu ànd ak suñu njiit muy Bira su suñu ay bëgg-bëgg ñu wax ko ne lii am nañ ko problème bii am nañ ko problème bii am nañ ko problème bii am na ko président apprécié ko bu ñu xoolee dafa am loo xam ne dafa spécial jour boobu président dañu ko defal mooy palais de la république ñu dugal ay sabar jour boobu bañ commencé maam góor gi Njaay suñu papa suñu maam di bàkku président dafa ne ana sabar ñu ne ko mu ngi ci biti mu leen dugal leen ko ñu dugal sabar yi pour la première fois ci biir palais ñu ñu bàkku wala suñu cosaan loolu dafa wane respect bi nga xam ne daf ñu ko ñu parce que ñun ñàkkuñu fula comme ni ko waxee rek fii ñun ñëpp toog on est parti de rien pour arriver à certain niveau ñun ñii ñëpp.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 parce que ñun tamit affaire làmb nekkul mbëri mag yi kese mbëri ndaw yi seen parce que ñun ñëpp ay mbëri ndaw lañ déparé donc ak yeneen ak yeneen côté sant bi comme ni ko waxee couverture maladie universelle bi mu installé ko comme kii mu ko waxee donc bu nit bu ñu defaree loolu dafa baax ñun ñu sant ko gërëm ko parce que ñun duñu ay baadoo la ci dëkk bi lañ dëkk ku ñu defal lu baax dafa jaaru ñu sant la gërëm ko bañ jugee pare ci dégg lu nekk ñuy ñii di génn di saaga ñii di génn di wax ay wax ko ñun ci ñun ci temps leen dëkk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 am nañu ci war a mën a léegi bu laa bañ jotee dañuy bëri xeex amul négocier de mais ñu ngi nii toog kaf wax waxtaan parce que jàmm ci la lépp xaj ñii nii jàngal la ba pare affaire yi bu amee da ngay gis ñii combat bu jotee da ngay faral baal ñii faral boo ñaar ñii faral ma set te ñooy bokk benn kër da ngay gis benn kër ñii faral baal ñii faral muur ñii faral ma set am na waaye léegi ndax mënuñoo nangul ne bu politique amee ñii faral fi ñu far bi ndax mënuñu ko nangul Sénégal dëkk jàmm la ñu ñëpp ñoo ko bokk wala mbër moom du citoyen ba mbër bu génnee na man fii laa loolu rek dañ ko war a saaga de non non non warul demee noonu warul demee noonu ñu ñëpp far politique am na quoi parce que politique benn moment la rek mais politique du bi yëpp politique benn moment la élection day jékki-jékki ñëw ñu dox ci ñi def seen campagne ñi bokk comme naan mais du laaj bi yëpp mu nekk politique élection yi bu passé après ku ne da dem réew bu ñu bëgg a tukki dañuy tukki sant yàlla bu baax bu ñu génnee oto yu baax ñu yor ñu ngi sant yàlla di ñaan mu yokk ko bu baax suñu kër ñoo ko yor ak suñu ay famille yëpp di dimbali suñu ay famille